ni kii di Ousmane jamono ji li mu gën a daal di jege mooy am ndam ci bi lépp procès dañu koy teewlu doog a dikkaat ci suñu jàngat bu leen fàttee abonné waaye itam ngeen aimé vidéo bi ngir ñu bëri daal ci mën a jot bon ci li ñuy tënk moom moo di que euh, lu mot lu ëpp juróomi euh, fukki waxtu euh, ñu ngi fi léegi avocat yi ñëpp joxe nañu seeni lay mu desoon nag ki nga xam ne moom la ñu nekk moom moo fi toogal société bi mu di euh, maanaam procureur général euh, cour de cassation ki mu yebal ba mu dikkee dafa nekk euh, ñaan bi ñu kii bi ñu ñaan nekk nañu jël mbir mi jébbal ko conseil constitutionnel ba xam lan wax ci kaw ponk bi ñu jël teg tuuma Ousmane Sonko ndax tuuma boobu euh, maanaam dafa méngoowul ak charte bi gën a kawe ci di constitution méngoowul ak charte yi nga xam ne que dafay euh, sàmm àq ak yelleefu doomu aadama euh, léegi nag yoon dafa nekk loolu bu fekkee ne yëkkati nga ko ci kanamu cour suprême wala cour d'appel ñoom waratuñu am sañ-sañ maanaam wéyal wax ci waruñu cee wax dañu war a xool ndax li tax ñu ñëw ci ñoom ñoom nan la tuddati yoon jox na leen sañ-sañ que ñu mën koo àtte ñaareel bi ak li yoon wax noonu lañ war a def pour agsi si ñoom su fekkee ne que loolu jaar na yoon et que amul benn rëq-rëq bu fekkee loolu yëpp gox ju saytu nañ ko ba pare fa lañ war a yem dañu war a jël mbir mi jëppal ko léegi nag bu ñu àttee bu ñu nekk bu ñu joxee dëgg bu boobaa wax ji kenn bu mën a teg tuuma boobu nit ki duñ ko mën a tegati it bépp euh, boo xam ne que maanaam war duñ ko mën a topp maanaam dañuy faase mbir moomu euh, ci yoon euh, bu fekkee nag topp ñu mbir mi dafay dellu siwaat mën a atte mbir mi dégg nga ca nañ ko ko jaglee ñaareel bi moom moo di que dañu nekk Ousmane Sonko liñ ko toppee lépp ay tappale la liñ ko toppee it àq ak yelleefam dañ ko jalgati ci anam yoo xam ne que yoon yi ñu tëral ci Sénégal ci justice loolu euh, da ko tere te it warul am ci réew moo xam ne que dafa nekk réewum droit la euh, léegi nag ci kaw loolu ba nga xamee ne que avocat yi pare nañu ka toogal. kii dafa nekk moom de ci xam-xamam la mu jàpp moom moo ko kuréel warul jël mbir mi di ko yóbbu conseil constitutionnel li tax mu joxe ay layam ci lay yi it dafa nekk ba nga xamee ne dañoo jóbbani wax jooju dafa fekk ne ko dossier bi ñoom toggoon nañ ko ba daanaka yekk moo des kon boog dañ koo yéex indi buñ ko teeloon indi bu boobaa cour suprême du def lu dul li yoon wax wante daanaka yekk rek desoon kon foofu maanaam euh, nan la tuddati moom yaakaar na ne wax ji kon warul mën a dem ndax fekk na sóor nañu def nañu lépp lu war ñaareel bi nag mu ne kon cour suprême dafa war a wéy ci àtte mbir mi jeexal ko atte bi nag te bu doon sañ-sañam mu ne benn euh, la nga xam ne que nan la tuddati jébbal nañ ko cour suprême lépp loo xam ne yoon teg na ko pour que avocat Ousmane Sonko yi def ko ba mbir mi mun a doon ndugg bu set ñu mën a ñu mën a togg togg bu tar ba pare it yekk daxin bu neex avocat yi def nañ kon boog mbir mi cour suprême amul foofu la muy wax te cour suprême am na sañ-sañ bi léegi nag ci biir li nga xam ne que moom lañuy ñuy euh, moom la ñu moo tax ñu ñëw ci kanam ñu ne foofu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo atte mooy attekat yi la ñu atte du yoon du yoon te yit yoon joxu leen sañ-sañu ñu war ko mën a jalgati noonu nee na ci moom xam-xamam ak la ko xelam jox ak la gis moom moo di benn dañu nekk Ousmane Sonko bu fekkee ne que maanaam fayum amande ñu ko teg du ak li nga xam ne que moom la ñu ne na ko jox mambay kam ñaa mu di deux cent mille deux cent millions yi foofu yoon dafa nekk dañ ko war a mën jàpp ñaari atu kaso yoo xam ne du génn te fayuñu ko ñu ne loolu attekat yi foofu lañu def du dëgg du yoon parce que yoon joxu leen boobu sañ-sañ yoon dafa dekk dafa dàq ci mbir yi nga xam ne que ay mbiru tuuma la dégg nga ak mbir yoo xam ne que maanaam ci sañ-sañu journaliste yi la kooku yoon dafa nekk mënuñu fa jàpp kenn bu fekkee ne que dañu la teg amende wala dañ la teg pour que dañ la teg yi kon boog bu fekkee ne ñoom lañ ci yokk ñoo ko yokkal seen bopp wante du yoon moom moo leen ko permettre et que yoon sax dafa bind ne tere ne loolu waruñu koo def kon boog maatay boobu war na tax atte bi ñu war ko nuulal ñu war ko yàq mu ne ñaareel bi it gis na ne que attekat yi it jalgati nañu yoon jalgati boo xam ne dafa jéggi jalgati bi guddi que Ousmane Sonko dafa li mu wax dafa leer moom moo di que euh, nan la tuddati euh, bu fekkee ne que Mame Mbaye Niang nee ne rapport bi amul dégg nga waxul dëgg mu ne loolu ci yoon bi ñuy doxe xam-xam bi dafa leer moom moo di nit ki li mu wax loolu ngay jël xool yoon naka la ko di toppee ndax lépp lu nit wax ak lépp lu nit def kooku yoon daf ci teg ponk te ponk boobu mu nee jël beneen ponk nga jaawale ko wëlbati ko mu nekkoon kon boog bu juge yi taxawee maanaam ubbi euh, seeni bët euh, firi seeni moustache ba pare nekk Ousmane Sonko dafa nekk mam mam mbay kan ñaa fenkat nga loolu nekkul waxul loolu kon boog ñoom ñoom ñoo jël la Ousmane wax ñoom ñu ñu ñu waxee ko ñoom nuñ ko bëggee te loolu yoon da koo dàq kon boog loolu wane na ne que euh, bi wërul atte bi setul atte bi bu ñangasul rek dafa di alte atte bu tilim boo xam ne que dañ koo war a faase dañ koo war a maanaam euh, dañ koo war a toj ko maanaam saayal ko Euh, ñetteel bi mu ne it li ñu gis euh, maanaam ci dossier bi dañu nekk nit ki bu ñu la topp nekk da nga gaañ nit ñu dem ba ci biir nga war a taxaw ñu lay atte ñu ne ñu ne ah dañ la fi indi pour nga gaañ nit wante ñun liñ lay atte ñun tey tey tey tey tey ñii nga taxaw ab càcc lañ lay toppee loolu dafa dàq loolu nit ka lan koy toppee ba nga xam ne loolu la préparé war a ñëw tontu ci amatu yoon joxul magistrat mu am sañ-sañ toppee ko leneen lu dul tax mu ñëw te fii dañoo gis ne que Mame Mbaye Niang dafa porte plainte ne moom maanaam ab Samba Boye la monsieur Clédor boo xam ne que maanaam euh, euh, tuumaal nañ ko tuuma yoo xam ne dafa yàq deram te it ci xam-xam. loolu sañ-sañ boobu dañ koo dàq kon wane nañ ne que atte bi jaarul yoon et que dafa di atte boo xam ne que euh, maanaam dañu war a dañ ko war a saayal ñuulalu ko am na moom moo di que euh, dañuy naan que kan mooma fi gàgganti nee nañ ko xaw ma lépp tàbbi na géej tàbbi fa lay mujjee léegi nag ñu ngi xaar juge yi dem nañu ah ñu ngi xool ci seen biir ba xam ndax dañuy jël mbir mi jébbal ko conseil constitutionnel walla ndax la nga xam ne que moom la euh, avocat général bi wax mooy ki fi taxawal maanaam société bi mais que nañ ko àtte bu jeex dégg nga lan lañ ciy def buñ ko àttee mu jeex est-ce que ñun la ñu wax ak la avocat général bi wax nga xam ni dafa méngoo parce que ñun yooyu ni ñu ko waxee noonu lañ ko waxee noonu lañ ko bindee est-ce que dinañu topp walla ndax ñoom it dañuy dañuy génne beneen kaamil bu mu rëb kaamil bi ñu jàng. AGT News. avoir l'information bon donc depuis ce matin cela fait plus de dix heures d'horloge euh, les avocats se sont exprimés ceux de la partie civile c'est de la défense donc de monsieur Ousmane Sonko et le ministère public vient aussi de finir son réquisitoire et ce qui est important pour l'instant l'information nouvelle euh, c'est que le l'avocat général a d'abord requis euh, le rejet de l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée en donnant donc ses motifs. Ensuite, il a demandé à ce que le recours formé soit déclaré recevable. Enfin, il a demandé la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar pour trois motifs. Le premier motif pour violation de la loi, et notamment les dispositions de l'article en ce que euh, la loi sénégalaise ne n'autorise pas au juge de prononcer la contrainte par corps. Or, les juges ont prononcé la contrainte par corps contre Ousmane Sonko sans aucune base légale. Alors qu'il y a un texte de loi qui est très clair, la contrainte par corps ne peut pas en fait être prononcée lorsque l'infraction est assimilée à une infraction de presse. Deuxièmement, il a requis la cassation pour insuffisance de motifs. Tout le monde a pu suivre le procès. Et tout le monde avait pu aussi entendre M. Ousmane Sonko. Et M. Ousmane Sonko a dit que Mbaye Nian ne dit pas la vérité. Cela n'a pas été traduit par les juges. Les juges, eux, ont donné une interprétation de ces propos en déclarant et en jugeant que Ousmane Sonko avait déclaré Mbaye Nian comme étant un menteur. Ne pas dire la vérité et être un menteur, c'est différent. Or, en matière de diffamation, on doit viser les propos précis, les qualifier sans aucune dénaturation pour en fait voir si les conditions de condamnation sont réunies. Donc, ce reproche a été fait par le ministère public. Et troisièmement, pour que cela soit plus simple, parce que ça peut être plus complet, il a requis la cassation sur le, la violation du principe de l'immutabilité du litige. Cela veut dire que quand on poursuit quelqu'un en matière de diffamation, le premier acte que l'on fait, qu'on appelle l'acte de poursuite, cet acte, on ne peut pas le changer. Or, Mambayan avait porté plainte en tant que je ne sais quoi, directeur de l'aviation civile ou quelque chose comme ça, et non pas en sa qualité de ministre. Le procureur de la République, quant à lui, lui aussi, a eu à engager les poursuites par une assignation du 10 janvier. Cette assignation fixait aussi donc l'objet du litige et Ousmane Sonko devait répondre du délit de diffamation envers un simple particulier. Donc c'était clair. Mais les juges ont trouvé le moyen de dire que Ousmane Sonko n'a pas diffamé un particulier, mais a diffamé un ministre, donc quelqu'un qui en fait a été diffamé en raison de sa qualité et en raison de sa fonction. Donc vous voyez, j'essaie d'être plus, plus, très pédagogue est assez simple. Vous voyez donc que les choses ont changé, les choses ont muté. Et là, c'est ce qu'on appelle le principe de l'immutabilité du procès ou de l'immuabilité du litige. Donc, il s'agit, par voie de conséquence, de la violation du principe, l'article 261 qui était donc la base initiale des poursuites diffamation envers les particuliers a été muée par les juges souverainement à part l'article qui en fait punit la diffamation en raison de la qualité ou de la fonction. Donc ce changement n'est pas admis. Non, ce n'est pas seulement en matière de mais en fait dans tous les procès et en tout état de cause Euh, je ne rentre pas dans certains détails, cela n'a rien à voir avec le pouvoir de requalification d'un juge ou de disqualification d'un juge, c'est d'autres principes beaucoup plus compliqués. Donc voilà, en résumant, le ministère public s'est rangé sur la défense de M. Ousmane Sonko en demandant la cassation totale de l'arrêt. Et maintenant, elle s'est arrêtée à cela. Et je dirais qu'il aurait pu demander la cassation totale de l'arrêt sans renvoi, parce qu'en tout état de cause, si c'est cassé, ce procès ne pourra plus en fait être repris du point de vue de la procédure. Espérons que la Cour de cassation, en tout cas, nous suivra. Nous suivre, c'est en fait deux choses. La première, l'exception d'inconstitutionnalité des rigueurs de la loi il doit renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel ne nous est pas favorable, si l'affaire revient, cela ne changera en rien, elle sera encore obligée de casser la décision. Et ce qui nous importe, c'est que le complot d'État ne puisse pas prospérer. AGT News loolu mooy kaddu yi nga xam ni maître Ciré Clédor Ly daal dina koy indi ngir leeral li nga xam ni jamono ji ñu toll nii mooy xew ca cour suprême Ousmane Sonko nag ñu bëree bari am nañ yaakaar ne ndam la nar amaat ci kaw état du Sénégal surtout nag ak position bi nga xam ni procureur général daal dina koy jël jëm ci moom fan la wàllent di mujjee ak i gëtam yàggatul dara lépp dina leer équipe bu AGT News dinañ leen ko toppal ngir saa su ne ngeen ciy am ay xibaar ki jàngat yu wér te wóor leen ngir news.